gannaaw ndigal li jëfe nañu ko ñoom Baay Faal yi ngir xàll corniche bi jële fa nag lépp loo xame ni rekk mi ngi ko doon xatal waaye tamit yombal dem beeg dikk bi liggéey boobee nag ci aljuma gi ci suba gi lañu ko door ñu ngi commencé poste contrôle bii si Daaru Marnaan waa jëm nii jàkkay sëñ Cheikh Saliou noonu lañ koy wëri nag ba daaru garas daaru Moussi wër ko ba ndaamaatu ba dellusiwaat poste contrôle incha allah lépp lu nekk si ñaari wet yi nga xam ne ñoo seq tali bi rek loolu des na ko dindi. ñoom ñi nga xam ni nag ñooy taxawee liggéey bi ne nag ndigal li daana ko matal kem na mu gën a rafete gannaaw ba ñu xamle ni loolee mooy seen cër. ñoon suñ Pastef yëpp mooy déglu ndigal jëfe ndigal rek. na ko sunu maam yi doon defe lu ci mel ni garab yi lu ci mel ni place yi nga xam ne dañ koo teg ci kaw tali bi muy ay cantine li xam ne wala ñi nga xam ne dañoo tabax mu mu mu mu di jëm ci tali bi loolu lu mu ci mën na fekk rek liñ romb lépp leer nañ te li suñ kanam tamit léppay leer nañ. garab yi ñu ngi koy dagg ñoo ngi farbant yi di yóbbu ñu ngi tonni mbalit mi di yóbbu ñu ngi maye ndox loolu moo fi suñ taxawaay jigéen ñi topp ci góor ñi rek. ni ngeen koy gisee nag mu mel ni am na ci ay yoo xam ni nag daanaka ñu ngi ci kaw xale yi lu soxal mbir moomee nag ñoom bay Fall yi. lii la ñu ci yëkkati ne ay kàddu. yi nga xam ne ñi ngi en cours de construction yooyu moom dañ koy dindi tey tey moom waaw waaw waaw mais yi nga xam ne nii àgg na comme ay courant ay mband ndox mbandu citerne essence gasoil yëpp a ngi si suuf te ñoom am na peut am na am na système bu nu def ba dugal ko ña xam ne ñoo def système boobu dugal ko ñoom la sëriñ bi bëgg ñu dellu si nag jaar fañ jaaroon ba dindi ko ndax mbooloo mi. pour contrôler leen ci fànn boobu te lii risque la danger la. gannaaw ndigal li nga xamee ne nak jóge na ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jëm ci sëriñ moo du Mbenn Fall mi nga xam ne nag mooy xalifu Baye Fall yi ci nag yaatalaat corniche bi waaye tamit lu soxal marché Ocass liggéey boobu nag door nañu ko tey jii waaye ci bésu tey bi nag liggéey bi lépp nag mu ngi yem ci corniche bi.